ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا dañu am naqar Golbert nag kenn waru ko jaalee waa Balakos rek waa Saint-Louis rek Golbert national la papa Golbert papa Golbert national la woon eh, di wax rek ñu man mën naa wax ci moom tax bu may commencé di wax ci moom aussi mën naa xam naa fan lay commencé mais doo am jeexlukaay parce que am naa chance xam ko muy fekke sama juddu yar ma moo sama yaay ñu àndoon si ànd nga añ njëkk avant moom sax sunu paar sunu sunu maam yi la woon ndax ku xam Balakos xam ni Mat Mat Golbert fi ñu fi ñu fi ñu fi ñu dëkkoon sorewul mu nekk nag ko nga xam ne mën naa wax ni euh, sama réussite lu pare la ci moom ndax euh, bi may joué Espoir de Saint-Louis at Réveil si la commencé si commencé di ñëw di ma seetaan Linguère da daan am match sax mu bàyyi match Linguère ñëw di ma seetaan man ak maxtaan Ndiaye et à chaque fois mu amul micro aussi avant sax ñu xam ni professionnel lañu il disait pas mal de bien sur nous di wax rek ni. tey Sénégal ñoo ñàkk. Golbert ak El Hadj Diouf tey ji mën naa wax ni mburoot soow la wala mbu sukkër ak ndox boo ko ci dugalee tey jii kenn du xam kenn mënu leen ràññee nga jël sukkër dugal ko ci ndox suma papa la mën naa wax ni il a à la place d'un père à la place d'un ami ndax quand ça allait c'était quelqu'un aussi qui trouvait les moom pour euh, retaan loola pour génnele si sa euh, stress et tout sa euh, en gros daal li may wax moo di yàlla na ko yàlla xare àjjana suuf woyof si kawam ñaan ngi fekk ke ci bam aujourd'hui la culture sénégalaise perte nit bi gën a benn nit bi gën a mag tey ji Sénégal dañ ciy jàng rek tey jii amoon nañu ñu mel na ay ñoom Makhoury Diakay Baye Pël ñi nga xam ne tey dem nañu ba tey jii kenn gisul seen benn œuvre wala ñu defal leen dara il est temps que nag la culture sénégalaise jël les choses en mais muy sunu papa Golbert gars defal ko hommage bu lii lépp jeexee bu fitna yii yëpp xew si àdduna jeexee ñu defal ko hommage bu tolloot dimension nit ki parce que dans son domaine c'est un Nelson Mandela dans son domaine c'est un Léopold Sédar Senghor dans son domaine c'est c'est mën naa wax ni c'était un messager c'était un messager et Sénégal ñàkk na tey nañu jàng rek ba pare nag waxuma rek jàng xool lu baax li mu doon def yëpp ñu continuer di ko def parce que man xam naa ko mën naa wax ci moom ndax samay début quand j'avais l'âge même de ay mën naa wax ne gis ni ma ma juddu gis na ma ma nekk xale bu tuuti gis na ma ma commencé si commencement bi bu muy metti donc yal ko yàlla xara àjjana merci tonton merci papa parce que franchement tu as été pour moi merci et mes condoléances à tous ces enfants